konte nag waaw bu fekkente ni loolu danañu sone ba mu am danaa la defal géejawaay loo xam ne doo am fenn xam nga géejawaay dama fa def man maa ko moderniser dafa tali nit ñi ñëw ni ma mais président est ce que xam nga li nga def géejawaay ma ne waaw ma ci dara gisuma ko ñu ne ma defoon ko ma defoon quatre pour cent donc danaa la ñaanal waaye nag xam nga parti laa yor de man maa xëy xëy ni ci dama ko. waaye nag comme comme parti bi déggal nañu ma. waaw tey itam nit ku baax nga. ku bëgg sa réew. te am nga capacité. ah ma ne danaa plaider pour ñu def le maire bu Guédiawaye. alhamdulilah jërëjëf jërëjëf. yàlla baax nañ kañ rek. waaw incha allah ci suuf maire yëpp. incha allah jërëjëf.